waaw comme nu ma ko seexee nu ma ko waxee sànq rek ci kalama nasaraan euh, Afrique benn match yombatu si match yëpp euh, métti tey gis ngeen Soudan euh, match bu métti la match bu ñu demoon Madagascar tamit match bu métti la di sant yàlla bu baax di remercier vraiment suñu supporters yi voilà dernier match bi fële Ndakaaru aw ma woon temps remercier vraiment Ali Kassa remercier deuxième gaynde suñu supporters yi le stade plan plein ça veut dire tout simplement que engouement boobu nga xam ne équipe nationale bi soxla na ko euh, public bi mi ngi ñëw répondre ñan ñoo doon laajte est-ce que perdu nañ popularité gis nañu lors du match contre Soudan que équipe bi perdewul popularité que sénégalais yi gëm nañu équipe bi sénégalais yi ñu ngi ci ginnaaw équipe bi ñu ngi di sant ñu ngi leen di gërëm parce que seen i ñaan gis nañ ko vraiment di si sant yàlla bu baax. match bi hmm? waaw mais c'est normal parce que tout simplement en face adversaire moo fa nekk. donc euh, il faut pas il faut ñu arrêter di sous-estimer adversaire yi yàgg naa ko wax nee naa leen Afrique léegi euh, mbër bu ndaw amatu fi ay mbëru mag rek fi nekk donc euh, si tey Sénégal mën na aspirer ne que mën na gagner ñëpp nañu nangu tamit ni ñeneen tamit moom nañ mën a jouer pour gagner ñoom tamit donc loolu mooy humilité je pense que humilité boobu bu ñu ko amee rek incha allah dinañ gën a liggéey ça fait vraiment di jëm kan équipe bi mën a jëm kanam non du ko ci coaching parce que du loo xam ne dama koy jël yóbbu ko ci sama bor. foog naa tey équipe 11 euh, ñooy commencé et puis ñeneen ay remplaçant nañu tey mun naa wax ni que banc bi remplaçant yi xale yen ñoo nekkoon ci banc bi ñoo ñu gagnaloo match bi di ci sant yàlla bu baax a baax a baax.